يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة نوكل سنو بوك في وقت سنو برو بير جمعة الله di waxoon nañ ci yu bëree bëree bëri fi ñu mujj woon mooy fi nga xamee ne sunu borom jox na jigéen àq bu demee ba bëgg a jeexal sëy bi mu jeexal waxoon nañu fii ma tanat ko moom su nekkee ci néegu sëy ba yàlla dogal mënatut a dem ngir yilla kooku sañ na ne borom këram naa la jox nangam te nga bañ ma sa baax waxoon nañ ne loolee su fekkente ne borom kër bi nangul na ko ko moo xam lim boo xam ne bu ñu tudd la saa su te borom kër bi jëlee dara ñëpp ci loxo dugal ci poosam loolu kon pase ma dog na waxoon nañ it ne pasem summee ko it pase mu dog lay doon pase mu dog nag li ci jublu mooy balaa ak daganante am seen diggante dañuy demaat jàkka jaxawaatu can yu xutba waat diggante bi su ko mën a dagal loolu wuteeg fasem fayda fasem fayda waxoon nañ leen li fi ñett laa gi di jeex ci ñenn yi wala li fi ñetti weer di jeex ci ñenn yi sa soxna la yaa ko war a dundal yaa yaa saa soo ko soxlaa yi da ngay ay ndaw ñu dugal la ci oto ñu dugal ko ci oto indi dara waraatu ci jëm jàkka waraatu de leneen waraatu nag loolu la ñu woyee fasem fayda fii nag su fekkente ne kon ñu ngi kon ci façon suumeel gi nga xam ne moom la ñu mujjee woon bi ñu mujjee ñu waxoon ne loolu nag lislaam moo ko jox jigéen ji bu demee ba mën a muñ ca sëy ba mu wax ak borom këram ne ko naa la jox nangam wala teema laay jox nangam te nga may ba sama baax loolu nag dugg na dañu waxoon keroog ñi xam ne dañuy topp seeni jabar ci di leen ne nangam bu dem nangam bu leen jigéen bu ñaan ne yaa nga xam ne yaa ko fase kooka lu buy dem lu mu fa amoon la koy yóbbaale waxoon nañ leen keroog ne leen bi ñuy jàng léegi ne gaa waxoon ne ne sëy bi saa su fas ma ci jàkka ni nisfu sadaqi ñeel la kookee ñu ko fasal saa soo xamee ne ñoom ñaar wér nañu ba asamaan set te ndaw si tëral ko boppam góor gi yàlla man man loo ko la muy man loo ay moromam boo waaye la desoon ca can ga war na si nga gis na ku nekk jigéen ay am ñu am ay gone diggante ko jeex mu koy fayu alal loolu moom dëgg doy na waar lool maanaam jéem a jéggi dal kon sumbeeku góor gi nga xam ne kon moom la ñu toll diine dafa wax ne su fekkente ne léegi tey ci misaal léegi jigéen jël na alalam jox ko góor borom kër borom ba fekk mu yore ab mu daal dagg léegi loola ñu ne duñ ko jàpp fooye léegi am fayda ndax fayda bu caagin ay acte lay doon ay acte lay wax tey ci misaal su fekkoon sa la léegi dana ko daañu jël cinq cent mille teg fii ci wetam daal jël day fay loola du tax mu tudd am fayda fayda faaw carte carte da cay am teewa naa jox lim sàngam nga may ma sama wan la jox ma lim sàngam ma may la sa baax waaye teg fii cinq cent mille oto gaara ci bunt kër gi ñu buub mën fay wala léegi ma dafa summeeku déedéet faaw ay wax da koy wax yooyu ci la ñu mën a summeeku ba ne loolu amul ñu ne nag kon ci kaar boobu su fekkente ne tey jigéen dafa jël cinq cent mille enveloppe bu ko ëpp wala bu ko yees jox ko këram borom këram fekk mu yor ab buum mu daan jël buum nga dal ko gàttit ñu ne kon léegi ndax loolu ak suñu nekk la ñu ne déedéet ndax su fekkente ne ñoom ci aaday dëkk boobu yee dëkk bu fasalee tegtale bu baax fasalee tegtal xam ngeen ne fiqhul maalik day bàyyi xel bu baax a baax al urf ndax suñu borom moo ko digle wa'mur bil urfi wa a'rid anil jaahiliin loolu tax fuqahaa maaliki yi dañuy bàyyi xel lool aada dañuy bàyyi xel lool aada dëkk bu nekk la fay fase léegi loola des bokk na lay fase fa feneen ndax bu dee ñun am nañu fay da ngay gis jigéen ñu fay nekk kër yi bokkam nangami at nangami weer nangami fan loolu tax mu tudd kon léegi ak fas léegi nag su fekkente ne aaday dëkk boobu loola doon na fa fase loola kon benn fase mu doon lay doon talaaxun baa'inun la ko diine du tudde ki jëm dara jox ko borom këram borom këram fekk mu yore dara mu daal koy dagg mu am bant la wala buum borom bi tëye xaalis ba ndaw xalxatun baa'idatun lay tudd ci biir bu fekkente ne loola aada la ca waa nit ñooñu su fekkente ne nag loola aada yi ndax day doon comme ñi nga xam ne bu ñu meree dañuy këdd seen i tànk wala ñuy def yeneen geste yoo xam ne ne xay na mer day tekkale bu baax loolu moom geste mer lay doon waaye duñ ko considéré mu nekk acte boo ne kon acte maanaam fase lay doon ci biir kon fii ñu xam ne fase balaa mën a am ñaari am ngir ñu mën koo jàppalee di fas ba ci njëkk mooy lan ki nga xamee ne mooy def muy borom kër gi wala soxna si def nañu yaari mbir wala mbir moo xam ne nii nattuwaay yi amee ak jublu am ca ndax waxoon ne fii ne may ma ndox ma naan lagal ma si jaata gi jox ma portable bi kese baagloo yi ak yu mel ne ci yoon. su fekkente ne borom kër gi fas te jublu ci diine ko sa lay def la ca am solo mooy an niya ndax yonent bi mën ko tënkaloon innamal a'maalu bin niyyaat kon baal yi la muy doon moom baal yi ay ay la ñu jëm waaye diine li bi moom innamal kon ñoom ñaar ñii su fekkee ne def nañ wala borom kër bi nga xam ne. moom la yàlla jox kàddu moom la yàlla jox baax su fekkee def nga màndarga boo xam ne mën nañ jaar fi nga ko ne lii fase la bu ma day daal di ci lii waaye nag bu baax dañ koy laaj dañ koy laaj ndax jox na ndox ma naan ñu toog mu mujj ne loo fiy def ñu ne ko loo waxoon nag maa ngi indi woon ndox ma naan mu ne ko xam nga ne kat dama ne lay jox ma ndox ma naan fase laa kooka dem sa bàyyi wala mu dem ci ay kilifaam ne man kat sama borom kër damaa jënd ndox ma jox ko ndox mu ne ma léegi maanaam jëlal say bala dañuy woo borom kër bu ne ko waaw ba mu koy sàkku ci woo mu jox ndox loolu jubloon bu ne fasa laa jubloon fasa ma day dox fasa ma day daal dox kon ñu bàyyi xel ci lu yu mel noonu ci ne kon fase dafay am firnde ak tegtal bu leer boo xam ne mooy li nga xam ne kon mooy mën a leeral diggante moo di imam malik dañoo wax ni sëy dana tase ci yaari mbir ba ci njëkk ñu ne mooy fase gi nga xam ne yàlla moo ko teg ci loxol góor ngir ne ar rijaalu xawaamuuna ala nisaa muy benn ñaareel bi mooy sëy dees na ko tas sëy dees na ko tas li tàqale nag ñaari mbir yooyu ñoom dañoo wax ne sëy bi su fekkente ne dañ koo tas boobaa nekk tas lay tudd duñ ko limaale ci li mu fase moo tax bàyyi xel sëy nga xam ne léegi dañ koo tas nga xam ne jeexal nañu diggante bi duñ ko limaale ci yett yi nga xam ne yett possibilité yi góor am pour diggante ak soxna ñu ne loolu mooy lan ñu ne bépp sëy boo xam ne sëy bu bon la bu yàqu ñu ne lan mooy sëy bu yàqu mooy may ma doom jëlal sa doom ma jël sa doom kenn ku nekk dem kenn joxe dara sëy boobu baaxul buñ ko liggéey yeex ak gaaw dañ koy tas sëy bi nga xam ne léegi sëyu sekkar la waxuma nag li ñuy wax ci sunu réew mi naan takk suuf takk suuf mën naa baax su fekkee dem nañu jàkka wut ay seede ci ñu ko diina ba delloo daal sëy bu baax day doon xëy kay borom kër ko moo la dana dem nekk daara ko ci kil bi daa war muy lu ko soxnaam waaye sëy moom bu tënkoo ca na ko diine bëggee mu am ñeenti seede wala yi bi ñu dem ca juma joxe gën jaaneew ñetti du ne ñaar téeméer wala gën jaaneew ñaari junni mu noppee ñu xutba waa sëy booba ca alaamatu seen diggante sart la yi nga xam ne kon jàngal nañ ko jàngal nañ ko ñu tolloo ca léegi diggante nikaax kon loolu loolu bu ngeen ko tuddee takk suuf it maanaam nikaaxul saa yéexoon ci lislaam kon li ma leen wax xëy na kay borom kër ba moo amul fit wax ko soxnaam ngir ne la mu si newal wala moo amul fit nag wax naa ko li la bëgg a wax yi ko mën a xam la a baax kon même sëy boo xam ne fas nañ ko ca amul kilifteef ci taxul maalik baaxul bu dee ci yenn masaa yi nag am na gën a baax loolu tax ñu ne kon muxtalafun fii fasaadihi ndax maaliki yoon ñun ay maaliki yoon lañ kon ci loolu lañ ñu sukkandiku kon sëñ yu secret bi nga xam ne dañ koo xumtoo jëkko ko rek daal di andi meew jigéen ah dama la ko jox rek fu ñu ko pasee da dama la ko jox rek xam nga loolu doxul te it wérul ci biir naka noonu sëñ bi nga xam ne maanaam fas nañ ko jàngul kilifa maanaam baayam wala kañ ko bàyyee rek wala magam kilifa la sëy boo amul kilifa baaxul ci biir sëy boobu nag su fekkente ne léegi yëg nañ ko jaxasoo nañu wala jaxasoo ñu dañuy firi sëy ba buñ firee sëy ba nag wala bi firi day doon su yàlla dogalee ñu fasal sëy ba kon góor gi am na possibilité ñetti fase ci soxnaam soosi ndax léegi firi ga bokkul kon foofu la firi tasub sëy ak fase rajo yi benn lay doon bu toogee ba nga xam ne yàlla dogal na iddaam jeex fay ni boo ko nga ñaanal ko ñu mayaat la ko boo boo demaatee ba fasawaat ko ñu limal la ñaar mu toogaatee ba iddaam jeex fay ni boo ko ñu ñu andilaat la ko waa léegi nga toogaat ba soxlawaatoo ko nga fase ko waa léegi kon def nga fasal sunna def nga benn mu jeex nga ñëwaat defaat ñaar mu jeex nga defaat ñett bu waa ñu ne la kon léegi naa nekkati lu dul dafa amaat beneen borom kër maanaam am na ko kon loolu mooy tàqale ci tuqul maa rek sëy bi ñu fase dañ koy lim benn ñaar ñetti ko mooy maximum sëy bi ñu tas nag waa duñ ko limaale ci ñi nga xam ay fase su fekkente ne nag léegi maanaam sëy boobee dafa doon boo xam ne mbooloo ak yi ma yi maasi nañu dëppoo ci ne léegi loola ba ci weer bii yàlla dogal muy day daan watagul ñu jël ko may ko keneen kooku moom boolem masaay bi nee nañ sëy boobu mu nga xam ne kii dañ koo may koo xam ne loo bokk baay ca xamante wuñu woon wala ñoo bokk ndey ca xamante wuñu woon wala ñoo bokkoon ak nampaale ca xamante wuñu woon sëy boobu saa suñ koy yéegee ndax la dafay bokk ci maanaam waxaar yu ca kan loolu dañ koy tas ndax loolu boolem masaay bi maase nañ ci dëkk wax muy mboolem masaali maasal ñu def ko ci ne juróomi soxna fasuwul juróomi soxna fasuwul kon ki yàlla dogaloon ñu fasal ko ak juróomeel saa suñu ko yëgee dañ koy firi waxuma tas de dañuy maanaam firi sëy léegi firi sëy boobee la muy tegtal la wala fa muy amee njëriñ mooy su yàlla dogaloon mu wàcc ca kenn ca ñeenti soxnaam yooyee kon sañ naa jëlaat kii nga xam ne moom lañ ko fasaloon daaw nekkoon ak juróomeelam waaye bu ko fasalee danaa bu ñu ko feccee daaw kon fecci boobee du ñu ko jàppe am passé comme zéro day daal di commencé wax jamono ñëpp foofu la sew sew bi kon nekk kon ci tënk kon fase daal ñaari xaaj la fase ni góor gi yoreel boppam ci loxol boppam kooku wax nañu ko ñepp ci yoon la ci am limite ak bi nga xamee ne kon léegi dañ koy firi firi boobu yi ba tey ay xaaj yu bëree bëri la ki yoroon soxnaam ba mujj amatul njëriñ soxna si léegi porte ko la ñu dem ca kaali ba kaali mooy xaali amoon na ñaar def def nañu dafay woo borom kër gi ba mu ñëw mu ne ko yow mënatoo koo dëkkal mënatoo koo woddu léegi nag da koy su fekkee borom kër bi bañ na. léegi xaali bu muy kaali bi léegi dafay dafay daal di fase ndaw si loolu benn fase day doon rajo yi wala xaali bu ko neexee sax moom mu ne ndaw si fase sa bopp jàngoon nañ ko ndax waxoon nañ leen ne fase góor moo ko moom moom na ko yàlla jox mu ne ci loxo waaye sañ naa am ku ko neex mu jox ko autorisation ba di soxna nit sañ naa wax soxnaa ne ko fase sa bopp ma defal naa sama bopp parce que bu dëkk kër gi mën a ko jeexal kon ba dañoo àndale kon dañuy demaat jàkk di góor sañ naa jox autorisation soxnaam ne ko fasee sa bopp ci base boobu rek ci la kaali bi di sukkandikoo ne maanaam fasee sa bopp yow soxna si ndaw si ne fase naa sama bopp xaali bi daal di liir verbal Mouhamadou Seck le forcé naa Mouhamadou Seck ngir mu bañ digal naa Rokhaya Ndiaye fase na boppam benn fase léegi loolu mooy science bi kon ñu daal di yëkkati jotaay bi mu nekk classage léegi ci am na leneen loo xam ne def na ci fu tasam sëriñ muy lan jullit bu nekkoon ci lislaam bu mujj mu ne maa gëmoon ñu ne waaw mu ne maa gëmati maa gëmati maanaam tuub bi kon bu waa léegi soo naam soosee talaaxum baa ibul lay teg ci loxoy murid yi léegi sëy boobee tas na seen diggante soxna soosee nga xam ne yéefar bi nu jàpp jàppaale ko moo doonoon borom këram soxna soosee yéefar boor du doonaan borom këram ci biir na muy def kay mooy dañ koy teg fee bu dee am jaam dañ koy yàgg ko jënd yàndoom su fekkee jàpp ku ko am jaam saa su fóotee benn pool ku ko ko dund may na bu fekkee ne tuub na ci kon yépp yi yu baree waaye dañ koy tënk rek xam nga daal li ci mën jàpp mooy sëy dana tas ci ñaari anam façon bi nga xam ne ñetti yoon la ak tas bi nga xam ne kilifa moo koy def mu nekk kaari wala mu nekk ab sëriñ wala mu nekk imaam wala mu nekk collègue chef de quartier bu mu ci mënoon mu sukkandikoo ci kon ba dañoo jeexam ñu bu ñu àggalee ba sëlmal ñu jàng faatiha bu sell ak ñeent fukki lexlaas tajibu salaatu ala nabi booy mam bu yàlla man loo jëmm jëm mu ñaanal soxna Aysatu Mbeen Mbàkke kër gi kaaskare bii ngeen di seen fii ci kër gi moom la ko si fii di sunu bàyyi di di sunu lépp di kilifa dëkk bi yàlla dox dogaloon na ab sëy dox seen diggante ba ay bant soqee ko ci kon bis da tey la wàccoon liggéey ñu denc ko ci gaaw bi ñaanal ko yemale lépp lépp ca bis ba waaye gannaaw fii la doon dund ci Bambey am fi njaboot kon bu ñu sëlmalee ñu jàng faatiha bu sell ak ñeent fukki la laas tëri ba salaatu alay bu booy man ñu ñaanal ko ci. ñu boole waale suñu rakk ku ñu wax Abdoulaye Abdou bàyyam ak sama bàyyi ñoo bokk ndey ak baay mu nekkoon Amérique doon fa daan dooleem ba yàlla moomee foofee bakkanam si loxoy ay ay ay nit kon kooku shahid la kon bunu ñaanal le bajja na ba nopp ñu boole waal ko mu nekk genn ñaan nañu jiital bajja du ndax mooy suñu kilifa bu nopp ñu fekk ci rafet yi ñaanal ci boole waal ko sax ak mari ya tey ñaan jéggal ak yàlla tey ñaan yàlla xéenu ci boppam tey ñaan yàlla teg na siraatu saxim jéggal ñu jéggal suñu bakkaar jéggal ñi ñu jiite woon réew mi yàlla def yàlla def jàmm yàlla yàlla méngal a fal yi lépp lu fi mu doon aw ay yàlla ko yàlla bu so sotti fa ko soog képp ku fi daan am xam nga aw ay yàlla moo fekk mbir ma wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala والله خير الرازقين